فزت بزار في الأزانة سيدة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 alhamdu wa sukuru ma andillahi ala nabi waladi abdallahi wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi wajjahtu kulli lil wadudi samadi saaxin madin lil mustafa muhammadi alhamdu wa sukuru ma andillahi ala nabi waladi abdallahi lilahi bi sikril akimi an xalib ma nabi waladi abdul mutalib بدل لي تملا العاصمي rabbi bi jaay Moustapha ibn Haashimi Mayumba ñëw na Porokhane ay ca murit bépp murit bu am pas-pas dem Mayumba topp jeexitalu Sëriñ soxna si boo ñëwee di a jaar ba dem ngeen jëf euh, mbokki internet yi ñuy baaxoo seetaat seen télévision bi nga xamante ni moom moo di euh, Tawfekh Production nuyuwaat nañ leen fi ñu leen daan nuyoo fii ci dëkk bu sell bi nga xamante ni moom moo di euh, Porokhane mbokk yi su ngeen gisee jotaay bi ñu taxaw xam ngeen ni euh, jotaay caravane Mayombe euh, ñoom la ñu taxawal ñu ngi ak Serigne As Mbeng ak Serigne Mamadou Ñang Serigne Moussa Ñang ñoom nag ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy taxawee li nga xamante ni moom moo di waajtaayu dem fi nga xamante ni moom moo di Mayomba Mayomba nak nekk fële ca diwaanu Gabon Euh, ñu fas yéenee séq ak ñoom waxtaan gannaaw bu ñu leen fekkee fi nga xamante ni moom moo di euh, poroxaan muy màggalu poroxaan bi nga xamante ni dañuy fàttaliku ki nga xamante ni moom moo di borom fanweeri at yi ak ñett muy soxna jaaratulaay nga xam daal liggéeyal boromam ba suñu borom tuddee ko jaaratulaahi dëkkaale suñu borom ji euh, tey jii ñoom ñu ñëw fi ñoom waa caravane Mayombe ngir maanaam fésal li nga xamante ni moom mooy Euh, waaj gi ñuy waajal liggéeyu yombe boobu nga xamante ni lé wax naa leen liggéey bu sori la ndax damay wax ni euh, diggante maa yomba ak fi nga xamante ni moom moo di Sarsara ak fi nga xamante ni moom moo di Grand Bassa yooyu yëpp di ay barab yoo xamante ni euh, Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba dafaa demoon ngir liggéey li borom bi tabaraka wa dañuy daal di jox kàddu gi suñu aas euh, mbeng mi nga xamante ni moom moo yëngu ci wàllu communication suñu aas ginnaaw bi ñu la nuyoo tatagal la euh, di la dalalaat di la ndokkeel fii nga xamante ni moom moo di poroxaan euh, ban yëg-yëg nga am ginnaaw bu ñu la fekkee fii ci poroxaan asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli ji mbokki taalibe bi sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér man maa ngi tudd aas mbeng nekk ci communication boo leen gisee tey nu fii ci poroxaan dañu relancer waat caravane maa yomba caravane maa yomba nag li tax nu taxawal ko mooy fexe yëwanal képp kuy taalibe rek yaakaar seen Tuubaa rek ñu fexe ba nga teg sa tànk ca maa yomba ndax jullit boo gis rek yonent bi bëgg na faa dem muy sallallahu alayhi wa sallam wante murit boo gis rek bëgg naa dem ci yonent ba bëgg cee dolli yi dem maa yomba loolu rek moo tax ñuy daw guddeeg bëccëg pour fexe ba ñëpp dem ca di xam ni nag maa yomba di pro di projet bu mag nag maa yomba aussi di projet bu mag ndax sëñ Touba Xaadim Rasool dafa defoon ay bant def ko jàq nu buddi sànni ni ko fi julli amu fi waa caravane bi ak mbokki julli ji ak taalibe yi fas yéene defal ko foofu nag jumaa ju mag fas yéene ko defal foofu aussi daara ju mag joo xam dinañ fa jàngale alxuraan loolu moo taxoon ñu ñëw fii tey rek ci ci poroxaan bugg a yéewanal bokki taaliba yëpp ñëpp mën a dem jaare ji poroxaan dem ak jàmm ñëw ak jàmm jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm sëñ As euh, ñu des tuuti ci wàllu communication suñu waxee Mayumba ñu bari xam nañ ni dégg nañ turu Mayumba waaye xamaguñu barab bi ci côté communication ndax yéen a ngi liggéey. waaw waaw ñu ngi ciy liggéey ndax euh, Mayumba dafa soree lool dafa soree lool ak capitale ba di libre ville ndax boo jugee fii Sénégal jëm Mayumba da ngay jël avion wàcc sa capitale ba libre war wara def nag huit cent quelques kilomètres pour léegi yegg Mayumba loolu moo tax ñu ngi motiver ñëpp di motiver ñëpp rek. suba ba léegi démb ba léegi noonu lañ fi nekke di leen ko wax pour nit ñi waajal ko xam maa yàmba ni mu mel ak ngëneel ya fa am pour ñëpp mën a dem rek ziare ji. voilà mu nekk euh, waa caravane Mayumba euh, di profito bu baax a baax ci jotaay bi di nuyu bu baax a baax sunu benn mag professeur Assane Diagne nekk foofu ci Gabon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar moom sunu mag la ñu ngi ànd ak moom euh, su ko defee sëñ Moussa ah, ginnaaw bu ñu la nuyoo. Euh, tatagal la ziyaara la ndokkeel la ci bis bi nga xamante ni tey ngeen bàyyi ko ah, barab yu fasantikoo di fa liggéeyal Serigne Touba Seexul Xaddim tey nekk bisu soxna jaartulaay Mariam Bousso ngeen ñëw ngir fesal seenug liggéey fii nga xamante ni moom moo di Porokhane ban yëg-yëg nga am d'abord asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërë ngeen jëf noo ngi leen di jaajëfal bu baax ci seenub euh, taxawaay ci jàppale gi nga xam ne mu ngeen taxaw di jàppale maanaam waa Caravane Mayumba ci yaatal gi muy waa kii production feex Production waaw sëñ Mountakha Gaye maanaam di caméraman bi di ku mbokkum taalibe mu baax moo xam ni saa su ne fu ñu jëm fu nekk rek ànd na fa ak ñun ci fas yéene koo yaatal takku fas yéene ànd ak ñun liggéey bi saa su nekk nu ngi ko ciy jaajëfal o passage di jaajëfal sunu wëlëre woo tudd léegi mu si Assane Diagne di sunu wëlëre wu yàgg di Hizbut Tarqiyyah ñu bokk ndëkk genn kër maa ngi ko ciy nuyu o passage ndax de sama kóllëre waaw ñu ñëw nag di nuyu mbokk taalib yëpp di am mbégte ci lii nga xamante ni moom ngeen nuy laaj ndax Mayumba day loo xamante ni dafa am solo ci yoon wi lool ndax gabon tukkib gabon bi kenn réereetu ko bari na ñoo xam ni jàpp nañ ne xëy na Mayumba kenn mënu faa dem dégg nga waaye nag Serigne Touba ci boppam moom mooy tànn ñu koy liggéeyal te it moo indi ak jàppandal ba sëtam bii di seex Mouhamadou Fadal Bousso créé fa benn ONG bu ñu tuddee ONG Renaissance de l'Espoir moom moo chapeauté maanaam caravane bi amal nañ ko ñeenti édition bii ñuy waajal 2023 mooy cinquième édition benn bu ci nekk ñaar yi ñu jàll Serigne Mountakha boole noonu taawam bu baax bi di sëñ Koso ak jarbaatam di sëñ Xaadim Mbàkke ñu ànd ko ànd bu rafet bii it yegg nañ ca moom laaj ko ci ndigal mu jox nu ko ànd ceeg nun ñu nekk di ko waajal jàpp gunu date fixe bi waaye buñ ko dee jàpp ci mois de juillet normalement lañ koy jàpp incha allah moo tax package bi mënaguñ ko annoncé waaye incha allah noo ngi ciy liggéey bëgg a yombalal mbokki taalibe yi ci àdduna bépp kenn ku ci nekk mën a am accès dem ziare ji Mayumba ak Lambaréné ak Libreville xeeñtu jaar-jaari Serigne Touba yi foofee waaw muy lu mën a jàppandi ñëpp xamee ko noonu nun nag danoo féete ci wàllu transport muy transport aérien comme transport terrestre Gabon di dëkk réew mu sori ndax Afrique centrale la ne foofu waaye mën a jógee boo ñëwee Libreville ngay wàcc noppalu bu ca ëllëg saa la ñuy def visite des site à Libreville bu ca ëllëg ginnaaw ëllëg saa ñu def cérémonie officielle départ alxemes lay doon ñu départ wuti Mayumba al am fa alxames ajjuma di journée soxna jaara samedi ja ñu dellu si ñëw jaar Lambaréné ziare barabu Serigne Touba ba fa ne door a dellu si Libreville bu ñëwee maanaam fanaan ci asamaan set sa ca sa ñun ñëpp mën a tàggatoo mën a dellu siwaat ndakaaru ci jàmm ak saraam noonu mooy rôle bi nu féetale mhm. nu cey taxaw di ñaan yàlla dool nu cee suturaal ndax ñu ànd ko mbokk taalibe yu farlu ñoo xamante nii ñoo nga Libreville genn wàll gi ñu ci des ngi fii ci Sénégal waaye ñu takku lool di jàmbaar lool kenn ku ci nekk mat sëkk jëwrin ci liggéey bi dan ma caa jiital waaye kenn ku ci nekk mën nga sëkk fa nga féete waaw nu bëgg nag mbokk taalibe yëpp kenn ku ci nekk xamee ko noonu nu di waaw ko bokk waajal ba saa bu dikkee kenn ku ci nekk man caa dem ndax lañ fa nisër muy foofee ni ko sëñ As waxee rek jëruma ci dellu mooy tabaxal Serigne Touba foofee jumaa ju mag ak complexe Soxna Jaara bu yaatu ngir maanaam képp ko fa demati xam ne fii kat Serigne Touba ñëwoon na fi mooy Gabon. <laughs> Euh, sëñ euh, Moussa yaa ngi koy wax sànq ci li nga xamante ni moom moo di euh, cellule bi nga féete muy sellil transport. ndax ñi nga xamante ni ñoo nar bàyyi ko Sénégal wala gox yu fasantikoo hmm. ci biir réew mi ndax da ngeen am moyen boo xamante ni ci wàllu oto lay doon ak wàllu vol ba yan moyen ngeen ci am. waaw moyen de transport yi maanaam transport aérien yi ay vol lay doon muy compagnie daaw en 2020 ñu ngi associé woon ak ñaari compagnie muy Mauritanian Airlines ak euh, Transair ñoo nu yóbbu delloo sinu kooku mooy mooy aérienne yi selon nag maanaam euh, les périodes rek ça dépend mën na euh, période kii bi mën na changer compagnie mën na changer selon maanaam sunu suñuy entente mais nag Libreville maanaam ak Mayumba ba ba ñuy dellu siwaat ay bus climatisé lañ koy defee bus climatisé yi parce que day péri day day yoon wu sori ndax 819 kilomètres la Libreville ak Mayumba voilà kon nag boobu toogaay bu yàgg il faut mu confortable ay bus climatisé lañ koy defee dem Mayumba dellu si jaar Lambaréné ñibbi si libre Libreville loolu mooy moyen de transport yi ñuy utiliser ak ay véhicules personnels yoo xam ne oto yu ndaw lay doon ay double cabine ak ay ay oto yu ndaw waaye lépp nag ci cadre confort lañ koy tëral waaw. foofu gis nañu ndax euh, comité bi dañoo am situation wala dañoo am ay partenariat yoo xam wala ay sponsors yoo xam ñoo leen di jàppale ci liggéey bu ne mel. dans un premier temps actuellement amaguñu ay esponsor ni ay partenaires ndax dañuy door a jóg bëgg nag maanaam yaatal ko ba caravane bi mbokki taalibe yëpp xam ko ngir man cee dugal seen loxo nu man ko ànd ànd bu rafet ngir lañ fa nisara liggéeyal sëriñ bi loola mën a jàppandi te taalibe bu ñu nekk gis sa bopp ndax liggéeyal sëriñ Tuubaa taalibe yëpp. kenn ku ñu ne war nga ci def saw ñaq ndax tabax jumaay ak complexe soxna jaara du kenn nit moo koy def mais mbooloo mépp ko war a ànd kenn ku ne def ci saw ñaq ngir loolee mën a jàppandi ba képp ku ñëwati Gabon xam ni fii kat tukkib Serigne Touba bu siiw bi fii la ñëwoon lii mooy firnde la muy ñeenti bantam yéen simpi woon tey jumaa lañ ko fa sampal te jumaa yaakaar na ne neexu la simpi loolu mooy mooy mooy euh, projet bi. ñu sant la gërëm la. jërë ngeen jëf ñoo ngi sant mbokk taal ba yëpp di sant di leen sant yéen en tant que vraiment journaliste. Euh, maan bii di sëñ euh, Muntaxa Gay di mbokkum taalibe bi ni ma ko waxoon ci tàmbali bi rek maanaam takku fas yéene ànd ak ñun liggéey bi saa su nekk rek ñu ngi ko ciy jaajëfal di jaajëfal waa taw Tawfekh Production yëpp di ñaan yàlla na télévision bi am yegg fu kowe njortam ñoo ki ko leen jaajëfal jërëjëf euh, Serigne Mourtala Gaye ci wàllu caméra bi waaye jërëjëf ñi nga xamante ne ñoo ñuy topp fu ñu mën a nekk rek mbokk yi li lañ leen jëlale yoon fii nga xamante ni moom moo di Proxaan ci euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di caravane Mayomba mbokk yi woy leen di abonné ci sunu seen bii di Tawfekh Production ndax Tawfekh a ngi fi ay ca ba ci kanam incha allah naani ya hubballaahi nimal mu'minu anil mayli maktira wala qaxmanu نبست اللقاء أبدا لمولاي وحده خدي من لمن أندركي كلتل سنو نصفت بلا الميل بلا قمادان لفرد على قلق وانا أنه ديدنو نويت الدوام سكر وسكر خادما لخير الوران والأسير المسين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يحلنه نجي خريب ساكر وساكر جواد كريم بالمكارم يوزن نقي تقي سا لورو مسلم بشر من الله بلا قيوزن نبي نديب سو يا المواصب نسير لمن بالكفر وسرك يولن نسين بلا قسن حليم معلم سخن بلا من كلاما يلينو نجيب أجيب ناشب وناشك والآبر النايل سخرد منه نقيب رقيب مستجيب مسسب مسن ملاس وميمون مسن نسب نسب سا أتايا مخدم والناس والميزان نحمل ممكنه فزت بزار في الأزار sayyidatan